أحمده سبحانه وتعالى وأذكره بكرة وعشيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد fa uusikum wa nafsi bi taqwa allahi wa ibtigaai mardatih ayuha alixwa in allaha subhanahu wa taala xalaqana naxnu albashar bi alwaanin wa alsinatin muxtalifa wa jacala dalika aayatan min ayaatihi allati yajibu altafakkur fiha walictibaaru biha wa min xikmatihi an jacalana tabaraka wa taala shucuuban wa qabaa'ila linatacaawan بعدما تعارفنا على البر والتقوى ونحن المسلمين أرسل الله لنا رسولا بكتاب مبين وعقيدة وشريعة, وشريعة واح وقبلة واحدة وجعلنا أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وفرض علينا أن نتعاون على الخير وحذرنا من مغبة التناصع ولا تناسعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم kama amarna biltawaxud waliltifaafi xawla kalimati altawxid wa tawxid alkalima waactasimuu bixablillahi jamican wala tafaraquu wa yasifu alrasulu sal allahu alayhi wa sallam almuminin fi tawaddihim wa taraxumihim ka masali aljasadi alwaxid ida stakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saairu aljasadi bilsahari walxuma walakin ayuha alixwa hunaka asbabun addat ila alfirqa minha أولا الابتعاد عن صراط الله ومنهجه الذي رسمه لنا وثانيها إحياء العصبيات والنعرات والقبليات وثالثها التعصب ضد أو لشخص أو فكر أو مذهب أو طريقة أو حركة أو جماعة ورابع هذه الأسباب تكالب الأعداء على المسلمين وكل هذه عوامل ساهمت في خلق التناسق والتدابر بين المسلمين ولكي يعيش المجتمع بعيدا عن الفرقة والشقاق يجب مراعاة الأصول والقواعد التي تحمي المجتمع من التصادم فلنتدبر معا سورة الحجرات فهي تضع لنا قواعد التعامل بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم وقد علمتنا السورة أولا كيف نتأدب مع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ورثته في قوله تعالى laa tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih ay laa tataqaddamu bilqawli walfi'li wala tarfacu aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri bacdikum li bacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun inna alladina yunaaduunaka min waraa'i lxujuraat aktaruhum laa yacqiluun walaw annahum sabaruu xataa taxruja ilayhim lakaana xayran lahum summa takallamat suura bacda dalika an calaaqati almuslimina fi ma baynahum bi qawlihi taala laa yasxar qawmun min qawm wala tanaabazu bil alqaab wajtanibu kasiran min asan faasiqun fa tabayyanu wa fi fi l axir qaal fa aslixu bayna axawaykum bokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuubal borom bi di seede ne moom rek mooy buur tey képp ku bëgg a jaamooti yàlla jaamu gu mu nangu ci sunnas muhammad sallallahu yonent bi muy benn yonent la yónni ci noonu mu indi benn téere mu indi benn pas-pas andi benn yoon indi benn la ne yéen aw benn xeet ngeen te war ngeen a góorgóorlu ba dimbalante ci jàmm ak yiw te lépp loo xam ne moo leen di tàggale yéen jullit ñi na ngeen ko moytu ndax su ngeen ko defee dangeen ngeen néew doole ci seen kanam yi noonu daal di wax ne nangeen àndandoo booloo ci wax laa ilaha illallah wéetal yàlla waaye na ngeen ànd booloo itam ci boole seen kàddu muy benn loolu moo tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doon melal jullit ñi ci ni ñu war a mel sunu melut ñu xam ne ci ñu noonu la waaye noonu la ab jullit mbooloom jullit noonu la ma mel nee na fu ñu toll dañuy bëggante dañuy yërëmante day mel ni benn cër rek benn jëmm rek ni nga xamee ne cër ya noonu la ciy nekkee nee na ak jullit mbooloom noonu la war a mel nga xam ne loo ca laal rek ci cër yi wala lu dal ab cër rek cër yi ci des yépp koy maase yëg bokk yi am na nag ay sabab yoo xam ne su fekkee àndandoo bi demewul ni mu war a demee loolu moo ko waral la ci jiitu mooy lii nu yàlla sant pour ñu ànd ak lim nu sant ci ñu moytoo lu ñuy tàggale daa mel ni ñu baree bari ci noonu jaaruñ ci yoon woowa la ca tege mooy ñu baree bari ci ñun ginnaaw bi yàlla ne li leen bokk gi leen boole mooy diine daa mel ni kenn ku nekk yaa ngi delluwaat di seetaat leneen lu la wuuteeg ñetti wuutal ak ñi ci des ñi naan sama maam sàngam ñi naan man waa sa sàngam ñii naan man mi weex ñii naan man mi ñuul loolu bokk na ci yi nga xam ne kii tàggale nit ñi la te yaakaar naa ne fii ci réew mi ak feneen fu mu mën a doon boo demee nag fekk lu mel noonu ay nit ñoo xam ne su ñëpp taxawee ba ne ay julli lañ ñu taxawaat fee ne man fëgg seen dënn ne man maay leneen may leneen lu bokkut ak jullit yi su ko defee keneen ku nekk wax ko bu ko defee mbooloo tàggaloo bokk yi leneen li ci des itam mooy ñu àndandoo euh, bokk na ci bokk na ci li ci des itam mooy euh, mbooloo mi farfarloo gi bokk yi farfarloo dafa bokk ci mbir yi nga xam ne ci liy yàq ab ànd ci la bokk am na ñoo xam ne dañuy farfarloo ba lépp loo xam ne jógewul ci mbooloo mi ñu nekk wala kuréel bi ñu bokk wala tarixa bi ñu bokk wala lu mën a doon loola son donte dëgg la sax dañuy laaj ku ko wax kan la kooko wax kan la doo wax doo wax li ñu wax lan la waaye danga nga naan ki ko wax kan la loolu nag li muy indi mooy kenn ku nekk ginnaaw dégluwoo ku dul ku bokk ci sa mbooloo mooy keneen ku mën a doon lu mën a wax ci lu baax rek nga won ko ginnaaw loolu nag bokk na ci sikki yi nga xam ne moo indi sikki mbooloo mi li ci des nag mooy ginnaaw ñi nit ay jullit nag ay noon lañ ñoom ñëpp dañu daal di taxawaat ginnaaw bi ñu tàggaloo suñu biir ñoom itam ñuy liggéey ngir tasaaroo gi gën a am bokk yi bu nu bëggee mucc ci jafe-jafe yooyu fi ñuy jaar mooy nañu ànd ñun ñëpp nafar sóoratul xujuraat sóoratul xujuraat mooy saar woo xam ne ñun ñëpp def na wax ni naka lañuy àndeek ànd sunu kilifa naka lañuy ñuy sunu kilifa mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku ko fi wuutu la ci jëkk ci ci ci loolu mooy ñu ami teg yi nag moom yonante bi te sunu borom teel na noo wax ne yonante bi du yéen na ngeen fexe boobu bu ngeen àndeek moom bu leen ko jiitu ci wax bu leen ko jiitu ci jëf bu leen yëkkati seen kàddu ci kanamam bu leen waxee ni ngeen di waxee ci moom bu leen ko joor kenn ku ko soxla ku nekk na nga ñëw toog xaar ba mu génn ci yow waaye bu kenn ne dama ko soxla di ko joor waaye bi mu noppee ci foofu mu tàmbalee ci saar wi dafa ñëw nag ci suñu diggante ñun jullit ñi wala ñun waa àdduna naka la ñuy def ba jàmm mën a am ci suñu diggante loolu nag la ci jëkk mooy bu kenn di xeeb sa moroom bokk yi xeebante bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo andi moo andi moo andi li xew ci jamono mooy dafa am ñoo xam ne moo ñoo xam ne dañuy xeeb seen moroomi kuréel moo xam tariixa la moo xam aw awaasa la moo xam lu mën a doon sunu boroom teel naa wax ne loolu bokk na ci li tasaare mbooloo mi kenn ku nekk war naa moytu di wax ne man mënum lëmm moo xam ci sa mbooloo moo xam ci sa jëm bopp la ca des itam loolu moo taxoon Serigne Touba radiyallahu anhu wax ne doomu aadama sax daa wërta sañ a fëgg ab dënnam di wax ne man la ndax li tax mooy daa xamagul li feek demul yomal xiyaam bañ atte ko ba ne ko sa kër mooy àjjana sañu te yëkkati loxoom wala muy fëgg dënnam naan man la kon su dee soo melee noonu rek booy boo nga joxañ sa bopp te xam ne seytaane jekku na la xam na ne yaa ngi ci ak réer bu méttee métti ba ca tegee nag mooy nanu fexe ba bu kenn xeet sa morom waaye bu kenn di saboote sa moroom ci aw tur bokk yi ñu baree bari ci sëñ nekk i sàkkal ñeneen ñi aw safaan di leen tudde neneen woo xam ne nii kenn ku nekk masalan tey boo demee ca tijaan ya wala ca murid ya wala ca wahabit ya kenn ku nekk boo muytul sàkkal nga sa moroom aw tur woo xam ne ca seen biir moom la ñuy wooyee ña ca des muy turu saboote ak leneen te sunu borom daf nu koo tere ba ca des mooy nañu rafet njort bari na lu tasaaroo ci mbooloo mi yàqu fi te li ko andi mooy ñaaw njort ñaaw njort bokk na ci li nga xam ne moo indi li ci des itam mooy bari na lu yàq ci mbooloo mi te mooy ay xibaar yoo xam ne kenn du ko topp ba mu wér waaye ku ci nekk rek da nga koy dégg jot jàttali ko sa morom du nu xaar ba mu wér su ko defee nag la muy jur mooy day tax ñeneen ñi day tax la muy jur mooy day tax tasaaroo am ci biir mbooloo mi ndax boo moytuwul sax dana jur jiyee jim jur ba war jur ba noppi ñu door a xam ne ndeke mel demewut noonu wala ko ko doon wax waxewu ko noonu kon loolu yëpp suñu borom teel nañu ko la ca des nag mooy li xew ci jamono bokk yi te mooy am ñoo xam ne fu ñu toll fu ñu toll dañuy euh, dañuy yëddu seen i moroom bokk yi diggante jëw ak yëddu sunu borom tere na ko fii waaye bu ci nekk dafa jegeeg moroom ji bari na koo xam ne day toog ci ay jotaay ñu mooy jotaay yi Serigne Touba ti tudde jotaay yu texee di lañu fay toogee ba moytul ay nit lañu fay toogee wala am mbooloo ku ci nekk yaa ngi toog di toogee sa say say say mbokk wala say morom waaye am na koo xam ne soo moytuwul dafay romb di di yëdduwaale ba jëli fa baat boo xam ne day wax ne mbooloo sàngam fekk naa la ñuy wax nangam ak lu wax leneen mbokk yi yooyu yëpp day wane ne lu baree bari ci yàqu-yàqu yi lu lu am la lu am la loo xam ne moo taxoon Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu joxe na fii bind bu am solo bu mat a bàyyi xel mooy dafa am ay taalibe yu nekkoon njaareem ba ñu nekkee njaareem sëriñ bi nekk ci beneen kees mu dégg leen ñuy wax di soowoo naan tiijaan yi lii tiijaan yi laa ba ko sëñ bi déggee mu mer lool génn daal di yëngu ne foofu ñu ne ko ñun la mu ne li ngeen di wax ñu ne ko ñun de dañuy kaf rek di wax su nangam ak nangam mu leen bu leen ko waxati mukk ndax yéen du ngeen di ay juif ndax juif yi xam ngeen ni ñooy wax ne nasaraan yi néewuñ ci dëgg mu ne du ngeen ay nas ñoom it du ñuy nasaraan ndax nasaraan yi mooy wax ne ñeneen ñi nekkul ci dëgg bokk yi ñun ñëpp kon ay jullit lañ dañoo war joxante loxo waaye nag penc mi bu yàqoo ba jafe-jafe am la ca war a topp mooy ak defar bokk yi ak defar moo jafe nag lool tey sunu borom boole na ko ci yi muy digle fii mooy koo xam ne bu yëngu-yëngu amee bu yàqu-yàqu amee day jóg defar mbooloo mu ma doon yàqu-yàqu du ca du ca mën a ñàkk waaye na am ñu taxaw ñoo xam ne nag seen mbir yépp mooy defar loolu nag dañ ciy jaajëfal Cheikh Mouhamadoul Mountakha te di ko ñaanal sunu borom gën ko dolli kàttan ak wér ku ne xam na ne def na ay taxawaay yu am solo ci biir réew mi ci biir bokk gi ci defar ak jubale te muy loo xam ne ñu baree bari tewoon na leen loolu yëpp di wane rek ne loolu boobu taxawaay lu mënta ñàkk la ci aw xeet suñu bëggee am jàmm bari na luy xew ci réew mi mu àgg fenn fi su ñenn ña taxawoon ña war a taxaw taxaw defar ko rek du agsi foofa kon nag bokk yi nanu maase ñun ñëpp ñaan sunu borom gën ko dolli kattan gën ko dolli wér moroomam yi nga xam ne ñoo fi nekk tey liggéeyal diine yàlla gën leen a defal rek yàlla na yàlla sàmm nu yàlla dimbali nu defal nu yiwu àddina gu àllaaxira alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وآله وسلم أيها الإخوة رأينا أن الإسلام دين يحث على التماسك والانسجام الاجتماعي بين مختلف الفئات في المجتمع وباتباع الأوامر من الإصلاح وتجنب النواهي من استهزاء قوم بقوم والتعبير بلق... والتعيير بلقب يكره والابتعاد عن كثير من التهم والتثبت من صحة الخبر قبل تصديقه وتجسس وتتبع عورات الناس